ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonte bi sant suñuy ñaari waajur di leen nuyu internet yi bu baax a baax di am mbégte ak contentement jano ak yéen chaque jour ngi indi leen li gën a fas ci xibaaru làmb tey nag dañuy xëyee ci journal suñu làmb nag moom ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk kam xëyee nag di Balla numéro 2 la Lion de Guédiawaye la muy xam le nag mooy moins rayonnant moins agressif plus frileuse kii di Balla numéro 2 nag liñ koy xaaree mooy li nga xam te ne mooy ngembam ba léegi nag ci Balla Gaye ko génneel fans yi daal di koy génne nag mooy maanaam yeewi fans yi ba Sonko génnee yeewi askan bi Balla Gaye numéro 2 yeewi askan bi lañ koy génneel pour lan mu mën a danser la samba jour boobu nga xam te mooy la 7 août incha allah ba léegi nag ci kañ jëm nag mooy guy gi député États-Unis nag la muy xam ne ci journal suñu laa ba nee na bëgg mooy am seen borom taaj si nga borom def di wéer lu tax mu bëgg ko mooy dafa bëgg a won waa Sénégal dafa jum woon ci nga xam ne nii mooy rëg-rëg lam bëgg nag mooy combat bi ñuy doxee diggante moom Papa Sow gis digganteem ak Eumeu Sène loolu la bëgg la muy xam ne nag ba léegi ca combat mu amoon ci diggante ki nga xam ne mooy rëg-rëg xale ba ca caarooy nee na combat boobu yeewu na ci bu baax a baax ubbi na ay ñaari bëtam ndax lan bëri nañu ko war bëri nañu ko trahir ndax jour combat ba sax moom moo génne ci poosam ay millions ngir jëndal fansam yi ay billets ngir ñu mën dem stade combat bi nag nee na xam na ci ay traite waaye ki ko jàppale ba jàppale ko mooy liiru jaan ki nga xam ne mooy monument wu Guédiawaye jàppale na ko pendant après combat bi daal di koy conseil li nga xam te ne moo tax mën a ubbiwaat bëtam bu baax a baax kii di Woré Sarr nag bokk na ci ko jàppale bu baax a baax ca loolu le combat ca guy gi la ñuy desandi ba léegi nee na ku war ren ba déwén bu la jigee du yow dañ la koo ji ñi dem nga xam ne mooy Kaaw Gourné Kaaw Gourné nag mi nga xam ne ni moo war a bëri le 20 mars combat bi nga moo ko taxaw digganteem ak na nag moom la muy xaar ci combat bi lépp maanaam pare na sur tous les plans xeex bëri lépp lu ñuy wax pare rek pare nañ ci Fama Dramé nga may bàyyi ñi dem xam ne mooy Zal Zal sur mooy bu ndaw ak ki nga xam te ne mooy rëm combat boobu na nee na combat mooy duelu grand ya ba léegi nag ca kañ jëm mooy Cheikh Tidiane Niang ñu naan ko ninki nanka ninki nanka faati borom Parcelles Assainies borom lutte simple yi nag moom nag mu ngay rassuré ay fansam di dalal seen xel bu baax a baax naa leen na seen xel daal blessure bi du ma tëree bëre dinaa bëre la ma war a bëre waaye combat bi lu ci war lépp ninki nanka faati dina ko def ca noonu nag vainqueur de Doudou Sané Serigne Ndiaye de champion du CNG Serigne Ndiaye nag keroog ca dimanche tegee 5 millions kii di Serigne Ndiaye de moo raw gàddu ga Mansour Fall ba léegi nag rubrique bi xam te ne mooy nekk ci journal suñu lam ñu koy def mën naa ne chaque semaine ki nga xamante ne mooy Tyson la muy xam xamle nag Akon euh, la muy xamle nag ci journal bi nee rek ki nga xam ne mooy Tyson borom bul faale moo nekkoon idolam loolu moo tax mu bëggoon ko ci mën a bëreem ci taalibam ci baaxam ci yaram ci yaatoom ci lépp maanaam business lam bam doon def moo tax moom mi nga xam te ni mooy Akon daal di koy bëgg def ko idolam kan dem nag mooy mbay Diouf mbay Diouf ak Youssou Ndour combat bi nga xam te nii Assane Ndiaye borom Bawol production moo ko daal di taxawal ba léegi nag dat ba la ñuy xaar Ndiaye jaata Ndiaye kañ ngay xaar yeewul askan bi boobu yow la ñuy xaar nga daal tënni dat boobu amateur yi mën a kontaan ba léegi nag kañ jëm mooy adversaire bu Balla Gaye numéro 2 Lion de Guédiawaye di di Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass dañ koy xamal nag mooy tey jii nii Balla Gaye ba mu war a yeewu askan bi moom nag comme mbag maanaam retour ci arène bi moom la ñuy xaarandi ci nga xam te ne mooy ñaa bu ndaw avertir am la mu koy avertir nag ne ko combat boobu du ma la may dara te loo may ma jël dinañ bëre dinañ xeex bu làmb ji taxawee maanaam arbitre bi sifflé suñu diggante ñu ñaar dinaa def lu méttee métti jël ndam li yóbbu ko sama waa kër. ki nga xam ne nag mooy Boy Niang Boy Niang junior nag ka muy défier Laurent Ndiago <laughs> Ndiago bu bees bi maanaam ki nga xam ne nii moo ñëw ci làmb ji daal di koy toog indi slogan bu bees tàq tàq tax moom lay moom la bëgg bëgg a moom ñu ne ko ak kan mu ne ak bu Siteu bàyyiwul nag nee na ki nga xam ne dafa teg la trois défaites moom la bëgg a doggale muy ki nga xam ne mooy caatu rëbës combat boobu nar naa ne ak ñi xool lan la wanante di mujj ak gëtam te noonu nag bébé lak bébé lak nag kam bëgg mooy Tapha gay numéro 2 moom nag kala kooku la bëgg a bëreel fu mu nekk nii lay Gaynde jeex jàmm numéro de drapeau de reportrices du Sénégal maanaam drapeau boobu la jamee daal di jël daal di ñu koy jegleel ñun ñi reportrices yi pël bu rafet Fatma Dia am ngeen sas de am ngeen sas bu rëy rëy ak ñeneen ñëpp jigéen ñëpp ñu nekk ci làmba ji dañuy jël drapeau bi daal la koy jagleel mu nekk bis boo xam ne jam production mooy daal di honoré ñun ñii ca noonu nag ba ki nga xam ne mooy Gaston borom Gaston production ah combat yi muy taxawal yëpp bari na combat yi mu bëgg bari na waaye combat bi ñu gis ne bëgg ko wala intéressé wu ko mooy combat bi dox diggante Papa Sow ak Siteu nga xam ne ki nga xam ne mooy moo ko taxawaloon mu daal di yàqu ancuwul ñii xaar na combat boobu kan moo ko war a tëggaat ñi leeralaat combat boobu ba léegi nag Mamadi Ndiaye ki nga xam ne mooy doomu Robert ñu ngi koy xaarande ñu ngi gis na moom mu ngi résister ba léegi ci lutte simple bi lutte simple nag la desandi ba léegi ki nga xam te ni mooy yankaaw yankaaw soor moom nag mu ngay génn ci làmb ji ginnaaw ba mu dekkee demee demi final keroog quart de finale la génnee kan moo ko génnee Serigne Ndiaye numéro 2 ma jël raw gàddu ga di ko félicité bu baax a baax naan ko bu dimanche mu daal di tooyalaat ngéem ba mu daal di ñëwaat ayca di leen bëggee bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb di leen jaajëfal bu baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV saa su ne waaye di jaajëfal sama caméraman bi sama caméra woman sax laay wax Fama Dramé Dramé Tukulóor di la ñaanal jàmm ju baree bari sant équipe technique Leewtoo TV yépp ak Leewtoo production Mansour Fall sama caméraman damay bëgg ci yow bu baax a baax Ousmane jaajëfal naa ñépp jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV yéen ak jàmm di ko sàkku ci yéen di ko ñaanal leen bu baax a baax